waa crédit mutuel fi mu toll nii def nañ lépp parce que ñun amuñu woon bibliothèque ñoom ñoo njëkk a jox livre tey donc dafa représenté lu bëri si ñun comme que ñun am ay livres yoo xamante ñun amuñu woon ay livre pour nga am livre problème la woon léegi ñoom bu ñëwee jox ñu livre c'est-à-dire que daf ñuy touché de trop parce que maintenant da ngay ñëw nga ab livre nga dem jàng da ngay jàng au lieu nga nekk fi di rencontrer ay difficulté ba pare des fois da ngay dem ba Mboro wala des fois nga dem ba Thiès ba Dakar pour nga am benn livre au lieu que livre yi ma fi gis ins bi da toog fi nga toog nga am ko nga jël ci li nga cey jël nga delloo ko bàyyi sa morom tamit mu jëfandu si aussi. am ngeen jafe-jafe aussi informatique salle informatique. salle parce que ñu ngi ni suñu élèves yi kenn xamul dara si informatique presque amuñu benn connaissance ci informatique boo ñu joxoon ordinateur tey ñu si la plupart à part quelque chose de lu peu daal si lu bëri loolooy problème bi. ñu jox bu ñu mënee am salle informatique képp ku ñu mën a jox salle informatique tamit ñu sommes les bienvenus mën nañ ñoo am kaa jox parce que on a amuñu mur de clôture comme que gis ngeen ko tamit ins bi foo toll da ñuy séen. foo toll da ñuy seen aussi que mën nga fee def ay garab tamit mala yi 1 ñëw lekk ko mënoo fee am garab yu baax ba pare façon mala bu ne di nga ko fi gis fas yeeg mbaam yeeg danga ko fi gis tamit loolooy suñ problème loolu insécurité la tamit pour ñun pour suñ jàng ak suñ image aussi non non nous sommes moom aussi bu bëri jafe-jafe la euh, te lycée dafa soxla ay jumtukaay jumtukaay bi si jëkk mooy livre bi ñëwee commencé liise bi di fonctionner gis nañ ne école bi amul ay livre ñu bindee fondation crédit mutuel yàggul dara ñu tontuñu ne ñu dañuy jox un million de francs ci valeur de livre euh, vraiment loolu ñu koy rafet lu kontaan nañ si personnel enseignant kontaan nañ ci élèves yi kontaan nañ ci parents d'élèves tamit kontaan nañ ci rafetlu nañ ko defar nañ suñu salle de documentation salle de lecture salle de classe bu ñu transformé la mais dañu xam ne élèves yi foog ñu am fu ñuy dajaloo fu ñuy dem di fa xam-xam léegi lii salle bu amagul dara les premiers livres fay def mooy livres yi ñu fondation jox moo tax ñu ngi koy rafetlu lu si ñun vraiment suñu xol Euh, mm, mm. waaw. ñu waaw école bi am na ay jafe-jafe amuñu miir de clôture ecole bi amul laboratoire amul salle informatique amuñu téléphone amuñu internet les élèves eh, yu bëri am amuñu ko waaye teewul ñu góorgóor def li ñu mën def résultat li ñu mën. waaw te dafa enclave bi dafa sori. boo boo jaaree tali bu nga dem di yàgg doo xam ne lycée ngi fi bon léegi jaf malgré jafe-jafe yëpp ñu ngi góorgóorlu def li ñu mën ba résultat yi wax dëgg yàlla bu ñu koy dañuy siggi saa yu bac dañuy siggi. bon mun na gën a baax li mais li ñu am quand même tànn na bu ngeen ay sëggee waaw amoon nañu toll ay 40 pour cent loolu boo ko defee da sant yàlla xam ne tànn boo comparé ak moyenne nationale xam ne affaire bi demeewul noonu nga xam ne vraiment liggéey nañ y a de quoi sa euh, nga xam ne am na lu war a sedd sa xol euh, jafe-jafe yu bëri na wax naa ko léegi amuñu de clôture amuñu woon bibliothèque ñun ñoo débrouillé suñu moyen bopp ak conseil de bi dajo dajo waxtaan nañ xool ta classe bi ñu koy transformé def ko salle documentation mais foog ñu am ay livres yu ñu fa dugal ci lañ dem ci fondation Kër Mittal ñu jëfal lii waaw day exposé école bi amul benn sécurité garab goo fi def gàncax yàq euh, xar yi dañ fi taxawaalu mbaam yi di fi taxawaal fas yi di fi taxawaal nit ñi ñëw di root oto yi waaw oto yi di traversé am ñu fi ñëw di sàcc sàcc nañ plusieurs fois kii bi ay ordinateur sàcc fay matériel euh, dajji frontières yi parce que dañu am mur de clôture même bu dee am na gardien gardien mënul def lépp jafe-jafe yooyu lañ jànkonteel malgré tout ñu góorgóorlu di def ñun ñu mën pour def ay résultats parce li ñu fi nekk li ñu fi nekkal mooy fexe ba élèves yi tey waaw waaw am nañ fi benn élève boo xam ne mu nga fële école de santé militaire waaw fii la génne moo fi nekkoon deuxième prix de math national concours Matlet euh, il y a deux ans de am na ñoo xam ne ñu nga fële école polytechnique bon am na ñoo xam ne ñu nga faculté de médecine c'est-à-dire que ñun am nañ ay élèves de qualité yoo xam ne vraiment jàmbaar lañ bu leen joxee moyens yi yaakaar nañ ñu war a mën dañ war a euh, dañ a génn ni seen morom si génne donc cat bi rek cat bi rek benn cat lañ am mooy école bi dafa amul benn jumtukaay amul benn moyen waaye nag dëkk moo demee noonu foog ñu débrouiller doo ne rek aw jumtukaay du ma def dara même boo amul jumtukaay da ngay góorgóorlu def ay résultats waaw Crédit Mutuel du Sénégal fondation Crédit Mutuel du Sénégal monsieur Mohamed Lamine Ngom euh, dañoo ñëwoon tey ji ànd ak fondation bi ci demande boo xamante ni jotoon nañ ko ci lycée bi biñ ko jàngatee dimbali leen ñu génne ci suñu programme un million jëndal leen ko ay téere yu xarala ci mathématiques français ak lépp loo xamante ni ñoom ñoo koy soxla pour ñu indiloon leen ko wax dëgg yàlla pour ñu équiper seen bibliothèque bi nga xamante ni ñoo koy doog a la ñu indiloon tey ji jàppale euh, xaram ci wàllu livre ñu ci lekk parce que dafa mel ni élèves léegi dafa mel ni euh, xale lool ci lecture waaw dañuy xam ne xale yi ne téere moom mooy moom mooy euh, dëgg-dëggi source su xam-xam parce que lépp looy jàng nga dindee nga jàcci loolu dafay am solo c'est vrai que aujourd'hui nous sommes à du numérique euh, am na beneen distraction bu ci am beneen façon waaye wax dëgg yàlla li ngay gis ci livre bi gëstu ko te amoo benn distraction loolu lu lay jëriñ la te loolu tamit bi ko fondation Crédit Mutuel dikk di ko def dafa ñëw ngir jàppale état du Sénégal ci programme qualité bi nga xamante ni moo ngi ko instauré ci njàngale ak njàngale bi waaw ñun fondation Crédit Mutuel du Sénégal dañoo ñëwoon tey jii fii ci Ngaye Mekhe ñu tànnoon Ngaye Mekhe boole ko ko juróomi gox yoo xamante ni ñu ngi ci biir Sénégal euh, di dimbali euh, gouvernement bi ci politique bi nga xamante ni moom lay xeex si buru ci biir loolu la ñu leen indiloon matériel bii nii toll ci une valeur de 2 millions de francs nga xamante ni lépp luy set ak set setal dañu leen dimbali ñu xeex lépp loo xamante ni mooy paralysé. est-ce que globalement situation bi wane na fii gox yi nga waaw comme ni nga ko conseil bi defee rek dañuy toog xalaat suivre cartographie bi xool ne zone bi kat war nañ faa dem rawatina mooy comme ni demee Foundiougne Toubacouta tey ji Ngaye Mékhé lañ ci tànnoon ak yeneen ñetti gox yoo xamante ni war nañ faa dem ci nekk ñu jébbal la euh, ay moustiquaires yu tudd ci 2000 moustiquaires ak Ngaye bi nga xamante ni moom la ñuy xeexal problème bi problème bu am loo xam ne ñun crédit mutuel euh, dañuy nekk ci loo xam ne dañuy tëddee njaxanaay maanaam di dimbali gox yi li tuddee ñun li nga xam ne ñun li tax li ñu tax a jóg du rek euh, joxe crédit wala leneen waaye rek dimbali askan ñu tax a jóg lépp ci wàllu gox gox bu nekk muy wàllu éducation maanaam tàggat yaram muy wàllu njàng mi muy wàllu culture maanaam aada ak cosaan yi lépp crédit mutuel en tout cas loolu moo ko tax a jóg ki nga xam ne mooy bëru euh, dimbali askan wi loolu ko tax a jóg.